another one. suñuy yaay yi wax ñu gëdd leen suñuy baay wax ñu gëdd leen te jomb nañu ko te lu ñu am jox suñuy yaay lu ñu am jox lan la ci man gis nga li may wax jëmmu jël ñaar fukk ñaar fukk dama daan jox ma jënd dinaa ñëw si yéen de Ousmane Ba ma ne acca Ousmane mi ma yónnee junni oration rek moom yaa ngi doon ñaari junni Abdou Gamaye jox ma junni am pas-pas kenn la as as tuuti bu joxe bi as as tuuti loolu ak kan ba ma sonn ba ma laajee ci li ci kota Abdoulaye Niang jox ma la nga kenn laa bari ku yaakaar ne bàyyi naa la yow laa tudd suñu ay ñoo leen ñoo leen yëngu leen boole ñoo boole ñoom eh ma boole ñu boole ñu ati tudd ala jama ñu ma tudd lo la ana ba ñu ñëpp ñoom ñu ñëpp ñoom am dina ñaan ko ko ci yow laay commencé ay waay li ma lay bëgg bu dafaa dox ma ne la lii addiya tuub la sëñ bi xam fi muy demee ñun xamuñu fi ñuy def xam xamuñu fi ñuy def ndax mat na ñaari mat na ñaar fukki junni te góor ay ji yàlla tam jënd bu barke fasal naa la ñu ko du barke bu gën ngaa taal barke ba tuwa tam yaay maram ah joxaatal sëñ Bla asum na ñëw. sëñ bi jël lépp yalwaani wul sasut benn taalibe di leen dundal ci ay marinam waaw li ma leen defal bëgg ko moom mi bëgg na ko sëñ bi dafa ay doom bi ñu ko yore noonu am na lu ko wax sa njabootam di leen koo xañ di ko defal suñu doom ak suñu jëm daara ji ñun ñoo waroon a waay ñun ñoo waroon a naajaale di leen dundal daara Thiès yor daara Touba ñaari daara Touba di fay budget par weer lu mu gàtt gàtt du nekk lii rek laa noon dinaa ko wax ñu dégg na ko cëpp ànd ak sëriñ bi fi nu bëgg rek mu jëmale fa Thank you. ñaata la ñaata des ñaata des ñaata des sëriñ bi nee sëriñ bi nee na ton bi day mat fii ñu toog ñu dem jënd ko léegi indi ko loolu nag mooy na kenn ku ne jaajuwaat

sëñ Assane dan maa dee léegi ñoom ñii ñaa bàyyi cuun bi nu jàngee ba noppi li nu fi dajalee ni naw nu ko joxal sunu bàyyi te santal nu ko te ndax lu nu am sunu bàyyi lu nu xam sunu bàyyi kon sunu nee ba nu taxaw ci digg mbooloo wax fa ñu teral noonu sunu bàyyi tax kon noo ngi koy sante ana liggéey ba sëñ Xaadim nee nga joxal leen ko seen bàyyi liggéey bi ñëwal soxna kàddu yi nga ma yónni xam naa ne ni ma ko waxee ak ni ma ko bëgg a waxee man dama ko mën a waxee noonu waaye duñ ñu doy na boroomam xel yàlla nga àggale boo amul lu baax billaahi yaa jëm yi toog bàyyi boo ñëpp teg ci seen i laxasaay te xam ni lu baax yombul yéen di ngeen am lu baax yéen man maa seede loolu ak Sëñ Tuubaa yàlla na ngeen fekk seen njariñ seen waajur yi fekke ko di jaay Seydina Muhammad nag nongu leen koy ñaanal baax na waaw nee nan ko nan ko joxal sëñ bi liggéey wax ngeen dëgg de peccum leen réew bu neexee lay jaajab joogee 함께 하니 함께 되는요 네.